wa ridwaanillahi taala al akbar an il abdil xadim seyxina wasilatina wa ayunina a ahmadu banba xadim rasul asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa di julli ci yonenteem bu tedd sayidina muhammad sallallahu alayhi wa di feddaliwaat suñu jaayanteeg sëriñ tuuba cheikh ahmadu banba xaadim rasul ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di fas yéene dellu ak yéen ci njëriñ yi ñu baaxoo ànd ak yéen fii ci seen youtube les grands secrets en di leen di leen baaxe ay njëriñ yoo xam ne lépp rek dañ ciy sukkandiku ci alquraanul karim téere bi yàlla sun boroom tabaraka wa taala bi ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy ay sekkere yoo xam ne yu am solo la ay sekkere yoo xam ne yu wér la di njëriñ yoo xam ne <clears throat> ñépp dinañ ci mën a jëriñu kon nag ñi ngi ñaan suñu boroom mu defal nu tawféex ba lépp luñ fi joxe képp ku ko jëfandikoo yàlla defal la ci tawféex lu kawe sa njot ci barkeb alquraanul karim tey nag ñu indi leen boo xam ne dafa aju ci wàllu wërsëg wu yaatu lool ubbeeku ci say mbir rawatina sa buntu wërsëg incha allah ci suuratu sarxi te maanaam suuratu alam nasra laata ñuy tàmbali liggéey bi du mën a ñàkk ñu sant mbokk yi nga xam ne ñoo abonné tey topp liggéey bi di jaajëfal tam ñi nga xam ne ñooy partagé vidéo yi ba yeneen mbokk mën koo jot di ci mën a jëriñu ndax loolu itam lu am solo la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ad dallu ala shay'in ka failihi kon ñi nga xam ne ñooy jottali mel na ni ñooy def ñooy def vidéo yi rek kon loolu itam ñu ngi leen ciy sant bu baax te ñaan bépp luñ ci am ci yiw yàlla nañ ko bokk ak yéen ñi nga xam ne yàlla dafa dogal abonné gun te mooy ñi nga xam ne ñooy soog seetaan vidéo bi ñi ngi leen di ñaan ñu abonné te bés tous notification bi ndax mooy tax bépp vidéo bu ñu dugal ñu mën koo am incha allah ba tey tamit li nga xam ne bokk na ci liy tax ñu di leen gën a indi ay secret yu gën a am solo mooy ngeen di aimé vidéo bi ndax moo ñuy xamal ne aim bi moo ñuy xamal ne li ñuy def mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñu ngi koy apprécier ndax ñu doon am un million de vues tam te amuñu benn m dañuy jàpp ne nit ñi gis nañ ko waaye kat vidéo bi moom euh, neexu kon bu la vidéo bi neexee ñu ngi lay ñaan nga bës m incha allah su ko defee nag alam nasra laka sadraka wa wadana wisraka ila axiri suura moom di tàmbalee alam nasrah ba fa saar ba yem te mooy wa ila rabbika farxab moom ngay bind limub jay jaysun nag mooy limub waa ahlu badrin mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett lim boobu nag lim bu bari ay mbóot la lim bu bari ay sekare la bariwaana yi ñuy def ci mbir yi di ci taamu lim boobu di ko ko def mooy jaysun mooy trois cent treize kon ni ngay bind alam nasra trois cent treize soo paree nga bind xaatim bi nga xam ne moom ngeen di jàkkaarloo lool allahu ganiyu mugni jaamiu lañ ko tëggee incha allahu taala soo paree nga boole lépp daal di koy def ci ndox su ko defee nag nga di ci sangu waaye nag bul ko sangoo ci toilette ndax sikki sàkkawul ne alquranul karim moom lañu la wax alam nashara turu yàlla yi lañ tëgg xaatim bi kon ci gàttal bépp vidéo ñaan secret boo xam ne Muhammad mii jox na leen ko kenn du ko jëfandikoo ci toilette ñu bari xam nañ ko ba ràññee ko waaye segem dañuy waxee foo xam ne ñëpp a koy jot ku xam dana jot dolliku ku fàtte woon dana jot fàttaliku ku xamul dana jot yi ñu xamul nag ñoo tax ñuy wax kon yow mi nga xam ne xamoo woon alquran kenn du ko sangoo fa am sobe xamal ne lépp loo xamante ne jox nañ la ko rek boo koy jëfandikoo bul ko jëfandikoo fa am sobe ndax alquran la te loo xam ne bala nga koo laal rek dangaa laab laa yamassuhu illal mutahharun waroo koo jël di ko dugal fu laabul ndax loolu bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy la sax mel na nit bu dee ku ko xam te di ko def sax loolu mën nañoo dem ba tuddee ko murtad yàlla nañu ko yàlla nañu ci yàlla musal kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm. di leen gën a encouragé te di leen ñaan ngeen aimé vidéo bi ndax mooy tax ñu gën leen a indil ay vidéo yu gën a am solo jaaro bi nag na ko ñëpp am jaaro bi ku ko amagul woon maa ngi lay conseillé nga am ko incha allah bayre njaay bi képp koo xamante ne amagoo ko woon tam maa ngi lay conseillé nga am ko incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala